ci mbirum fête Toussaint bi nga xam ne démb lañ ko doon fête di fête boo xamante ni chrétiens yi dañ ci daal di rek profiter occasion bi lee ñaan ñetteelu cimetière boo xamante ni dañ leen koy tabaxal ngir ñu mën fa denc seen néew loolu mooy li nga xamante ni euh, daal di nañ koy formuler euh, comme vœu pour fii ci biir Dakar tribune dafa ñëw di laaj ñaata milliards la ñu daal di rek euh, dilapider donc loolu mooy laaj bi nga xamante ni samp na ci tribune. surtout nag ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum euh, euh, koppar ak suuf yi ci biir Sénégal euh, gannaaw loolu dañuy buñ ñu jógee ci tribune taxaw ci source a mi nga xamante ni ñëw na itam ci détail bi nga xamante ni moom la ñuy am ci audition Sonko suba loolu yëpp daal dina ci indi ab leeral moom source a mi nga xam ni daal dinay indi donc leeral ci mbir moomu wax itam ci euh, beneen ponk lu mu tuddee Ecorta donc euh, mu ngi ci biir euh, yéenekaay bi lii di Dakar Times moom dafa daal di taxaw ci moom du Lamine jàlloo mi nga xamante ni moom moo daal di rek àddu ci mbirum cinq milliards yi nga xamante ni dañ ko daal di dugal ci wàllum jëndub arme fii ci biir euh, Sénégal ñu ne euh, waa Eaux et ñoom soxlawuñu di jënd ay gànnaay loolu mooy kàddu bi nga xamante ni euh, yëkkati na ko gannaaw coow la 45 milliards yi nga xam ni ñu ngi ciy tudd daaw Daouda Diallo ak ki fi nekkoon jëwriñ bu environnement di Abdou Karim Sall gannaaw loolu ñu taxaw ci yéenekaay bi di l'Observateur moom dafa ñëw ci le mandat. Euh, bi nga xam ni euh, mandat de dépôt bi nga xam ne ñi ngi ne mën na am euh, suba ñu daal di koy placer Ousmane Sonko ou pas loolu nag mooy li nga xam ni l'observateur daal na ci taxaw dine lu munta nekk la loolu mooy seen ab xalaat en tout cas ci ki nga xamante ni moom la ñu jox kàddu ci yéenekaay bi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi nu mu gën a yaatoo Pape Abdoulaye un commentaire ci ci revue des titres bi waaw euh, ñu ngi lay sant d' abord di la gërëm ci euh, revue de titre bi bi nga xamante ni euh, daf ñuy permettre ñu xam lu xew ci réew mi donc gis nañ li fi gën a fës bokk na ci la convocation du leader de PASTEF que est par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi muy le président Ousmane Sonko et effectivement mu war a wuy ji suba donc sénégalais yëpp toog di xaar fan la wànneen di mu ki bëtam. parce que amoon na lu fi jotoon a xew am na benn euh, une bu ko wax sànq ne 3 mars bis kenn bëggaatu ko mais loolu nag euh, dafay fekk ni ñi nga xamante ne ñoo nekkoon les principales euh, causes ñu xool seen doxalin bii pa di leen daloon ba le ba mbir mi mujjee mujjee fu mu mujjee xëy na duñ ko defaat bu subaa ba mbir mi tamit nar a mujjee waat feneen parce que ci rappel ñu ngi fàttali ne 3 euh, mars 2021 fukki nit ak ñeent suñuy compatriotes sénégalais ñàkk nañu seen bakkan ci réew mi et li gën a metti ci loolu le pire dans tout ça mooy euh, ñu ngi tey ci euh, mën naa wax ni léegi ñu dugg ci novembre wala ñu ngi ci novembre 2022 ba léegi amul benn poursuite judiciaire boo xamante ni dégg nañu ko ci mbir mi loolu di am encore une fois di wane impunité bi am ci dossier bi. Mm. waaye aussi di wane ñàkk wekk gi ñuy ñàkk wekk dund doomu aadama parce que ñun gëm nañ ne lii su nekkoon dans un état sérieux normal et normé au moins le procureur de la république parce que man damay jaaxle ci procureur damay ragal ni sax est-ce que moom foogul ne membre APR la or il n'est pas un membre de l'APR le procureur n'est pas payé par Macky Sall. il n'est pas payé par le ministre de la Justice il est payé par l'argent du contribuable sénégalais c'est un magistrat en fonction non duñ ko dégg mukk mu yëkkati kàddu wala mu def conférence de presse comme ni mu ko tàmm di defee ne ah ñu ñu reyoon mois de mars 2021 dinañ ci ubbi enquête xool ñan ñooy responsable yi yoon teg ci ñoom daan bi war mais rey nañ ci ay doomu aadama boobu ba léegi te gëm naa ni du nguur Macky Sall lay leere am nañu yaakaar ni nag 2024 vu que Macky Sall moom du bokk constitution bi nee na ko doo bokk moom ci ay waxam tënk na boppam éthique ak morale nee nañ ko doo bokk xëy na ku koy remplacer su ñëwee dina ubbi une enquête sérieuse bu ñu situer les responsables par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan. d'accord di ñaan nag mu yem foofu. dinañ ñëwaat ci loolu mais jamono ji nga xamante ne yéen a ngi euh, ñaan en tout cas li nga xamante ni moom moo di euh, ci état bi ak autorités yi ñu daal di euh, libéré tijjil ñi nga xamante ni moo di pour porte liberté yi les détenus politiques jamono jooju ci la ñu ne ñii di laam-laamee ni suba Ousmane Sonko on peut ou pas donc le mettre en garde à vue yéen lan mooy seen xalaat ci loolu. waaw su mandat de dépôt waaw ñun euh, suñu xalaat ci loolu du lenn lu dul euh, comme ni nga ko waxee sànq nous sommes un collectif ñu ngi tuddee suñu bopp euh, collectif pour la libération des détenus politiques Macky Sall depuis un certain nombre de temps depuis d'ailleurs les événements de mars dafa am lu mu jógtee ci réew mi ñëpp teg ci seen bët muy lan mu nekk dans une euh, en tout cas ci posture tentative d'intimidation la nekk xool nu muy def di intimider nit ñi ci kaw loolu mu teg loxo ci ñu bëree baree bëri tey ñi ngi ci kaso bi ñu consider leen comme des détenus politiques lu tax ñu ne leen des détenus politiques c'est parce que effectivement ñu ñu jàpp dañoo waroo gis-gis ak ni Macky Sall nguuram yore réew mi parce que suñu am na ñu fi def li pire ñoom lu ñu def donte ne ñun bëgg léegi dañoo jàpp ni lépp luñ leen di tuumaal ay tuuma dong la mais du preuve du lenn loo xamante ni ni motif bu valable bu war a tax ñu ñu ñu nekk kaso ba léegi donc ñun ñi ngi xeex pour ñu libérer ñi nga xamante ne c'est des détenus politiques espérons que Macky Sall xelam may ko muy mandat de dépôt Ousmane Sonko man jàpp naa ni noo xelam may ko loolu man sama gis-gis la sama xalaat la man gëw ma ni Macky Sall am amee na fit noonu koo xamante ni tey. il incarne le leader de l'opposition koo xamante ni tey au-delà Pastef bi mu nekk président dafa bokk dans une coalition bu ñuy wax la première coalition de l'opposition muy Yewwi Askan Wi koo xamante ni tey il est maire c'est-à-dire d'une commune ñu koy wax maire de Ziguinchor koo xamante ni tey moo jiite tous les maires les élus yu bokk ci réel koo xamante ni ni tey dimension mën nañ wax ni dépassé na Sénégal ñu koy mandat de dépôt suba ak conséquences yu mu mën a jur yëpp man gëw ma ni Macky Sall bañee na Sénégal. mais mais est-ce que Macky mooy jugé c'est-à-dire boo nee euh, sañ na ko wala sañu ko moom mooy jugé wala euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk euh, dossier bi. waaw Sénégal nag ñun ñëpp xam nañ ni muy doxee de 2012 à nos jours képp ku ñu fi tëj nga nekk leader politique Macky Sall moo la tëj. parce que ñun lu ñuy jàngal endroit mooy la séparation des pouvoirs d'ailleurs mu nekk euh, benn taxa mu nekk loo xamante ni dafay jëmal en tout cas lu ñuy woowee démocratie amul ci réew mi au Sénégal nous ne constatons pas la séparation des pouvoirs Macky Sall en tant que Macky Sall a une main mise ci justice ñu muy doxee Macky Sall a une main mise en tout cas avait une main mise ci assemblée nationale heureusement que le peuple sénégalais a compris cela moo tax gis ngeen assemblée bi léegi nu mu tëddee mais avant cette quatorzième législature législature yi ñu fi fekkee yépp Macky Sall su dugaloon loi pour rey téeméeri sénégalais à l'assemblée nationale les députés de benn Bokk Yaakaar duñ koy voter sans sans réfléchir mu amoon une mise sur euh, au niveau de l'assemblée nationale te su ñuy wax séparation des pouvoirs mooy exécutif day xam cëram di ko def yem ca judiciaire xam cëram di ko def yem ca législative muy assemblée nationale xam cëram di ko def yem ci mais tey Macky Sall nag ñun suñuy wax am na ay magistrats yu soumis ay magistra yoo xamante ni ils sont au service de Macky Sall et régime am na yenn juges yoo xamante ne boole wuñu leen ci. léegi balaa ñuy ñëw ci ci kaw ñi nga xam ne daanaka moo tax euh, collectif bi juddu. bu ñu taxawee ci li ñëpp di xaar suba muy la convocation de Sonko yéen réelement lan mooy seen attente euh, ci boobule audition wu suba ak surtout li ci nit ñi di xaar ñëpp ne il peut y avoir des risques il de confrontation et tout ça yéen lan mooy seen seen seen seen position ak surtout li ngeen soxla di ko xaar ci ci journée suba bi. ñun euh, suñu position mooy euh, ñun xam nañ ni. ki nga xamante ni moo woolu euh, le président Ousmane Sonko pour déglu ko d'ailleurs matewu ko parce que événement mars yi bu mu amee mais dafa publier ci page Facebook am te nekkul woon juge d'instruction sarge c'est-à-dire le président Ousmane Sonko kooku nga xamante ni yow dara xewul yow dégg nga ni aji Sarr nee na Sonko daf ko violé yow jotagoo dossier xamagoo lan moo nekk ci biir dossier tu n'étais pas juge d'instruction nekkoo procureur xamoo lu nekk ci biir dossier bi nga publier ci sa page Facebook les images la les captures d'écran sont là chargé ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mais man juge su mun ma waxee ni juge boobu mooy déglu Sonko suba mais j'ai de j'ai de quoi douté c'est-à-dire sur sa neutralité ou bien sur euh, son euh, impartialité par rapport à ça donc euh, ñun jàpp nañ ni du juge bu libre d'abord waaye aussi euh, ñun jàpp nañ ni de l'autre côté que jusque là mën nañ sauver Sénégal ci guuta bi nga xamante ni Macky Sall ak nguuram suñu teggiwul seen tànk dinañ ko yóbbu réewu Sénégal moo tax ñun lu ñuy xaar suba du lenn mooy lu Sénégalais yëpp di xaar parce que gis nga euh, fukki nit ak ñeent quatorze morts yi am dina am ay responsable de dina am ñu tëdd ndax ñooñu seen euh, la fekk ñu ñàkk seen bakkan ñun ñoo gën a bëgg procès am ñun ñoo gën a bëgg dossier bi leer donc nañu ko teg ci yoon teg ko ci impartialité ba nga xamante ni euh, lépp loo xamante ni procédure la ñu respecté ko lépp loo xamante ni nii yoon santaane na ko ñu wàccoo ak moom te ñu bañ ko teg ci jaay doole comme nuñ ko bëggoon defee en mars 2021 te ñun ñëpp ñu ñu nekk ay témoins oculaires ci li fa xewoon donc nañu teg dossier bi ci ci yoon àtte dossier bi ci yoon leeral mbir mi situer les responsables su ko defee Sénégal yëpp d'accord ci mais quant à utiliser ce dossier politique pour liquider un adversaire politique et d'ailleurs un potentiel adversaire koo xamante ni ñun ñii ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ni jusqu'au moment ou ñu ngi euh, jusqu'au moment où on euh, on est de discuter moom mooy ki gën a jege présidence que quiconque moom mooy ki gën a jege pour remplacer Macky Sall il l'a fait avec Karim Wade mu jàll il l'a fait avec euh, Khalifa Sall mu jàll et il veut aujourd'hui le faire avec euh, le président Ousmane Sonko loolu nag gëm naa ni askanu Sénégal duñ ko seetaan. mais buñ ko euh, la lan nga yaakaar ni tey moom moom moo est-ce que on peut s'attendre selon vous wala boog régler ko ak ñu comme nuñ ko régler woon le 3 mars 2021. mais bien sûr maanaam Macky Sall dafa war a comprendre. mais mais est-ce que waruñu changer c'est-à-dire. Euh, méthode de lutte yi ak surtout xool naka la ñuy fexee ba am euh, en tout cas pour ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, lutter le plus souvent xool beneen méthode boo xamante ni moins violent pour pouvoir arriver peut-être ak si si ñoom lu ñu soxla comme seen ay mbébét. waaw dafa am benn proverbe bu wax ni gis nga ay nit suñ leen nootee opéré ñu bëgg seen liberté ki leen noot mooy définir forme de lutte. bu ñuy utiliser pour yeewee ko euh, sànq yaa ngi wax est-ce que jotul ñu changer méthode de lutte man je ne pense pas. parce que quatorze personnes ñoo dee te kenn amul benn lumière bu ñuy def ci loolu. waaw mais dina leeri tôt ou tard. Euh, tôt tôt ou tard il y aura des mm. loolu c'est clair. beneen bu ci topp mooy ah dama lay jox exemple Karim Wade bi nga xamante ni les gens voulaient le régler de manière euh, pacifique dama lay jox exemple xalifa Sall bi nga am bu ñu ko convoqué il un point une conférence de presse dem wuy ji say militants étaient tellement pacifiques ba looloo ko jural tey ba sànq ci bëccëg mënugul bokk ci benn élection ci réew mi parce que n'est pas éligible donc chose qui qui qui laisse croire que Macky Sall xamul maslaa Macky Sall xamul négociation Macky Sall xamul kuy ñëw euh, xamul kilifa diine buy woo bu koy woo di waxtaan ak moom xamul koo xamante ni nii day ñëw pour def médiation Macky Sall leen la xam muy rapport de force gis nga négociation ak forme de lutte bi nga bëgg ñu bi nga bëgg en tout cas askan bi euh, euh, jëfee ko suñ ko jëfe woon heure bi Ousmane sonk mi ngi ci kaso bi Ousmane Sonko si il est aujourd'hui libre c'est parce que form de lutte bi sénégalais yi utilisé woon le le le en mars 2021 forme de lutte boobu donc kott la Macky la xam rapport de force la xam donc comme te rapport de force la xam mais rapport de force nit ñi demee ak moom. peu importe le nombre de morts ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci. ñoo ñàkkal seen doom te ba jamono ji amul benn euh, justice luñ ci def. waaw xam nga tamit euh, il faut que ñu xool wala ñu euh, wekk ko ci tôt ou tard rek comme ni nga ko waxee tout à l'heure tôt ou tard moom mbir mi dina leer yi xam nga dañoo nekk ci ci tournoi bu décisif ndaw yi. mais mais yéen Pape Abdoulaye lan moo tax je veux dire collectif bi bi ngeen koy taxawal. taxawaloo leen ko pour ni euh, peut-être le collectif pour la la lumière euh, sur ces quatorze morts mais ngeen def ne collectif boo xam ne ngeen ko taxawal pour des détenus politiques lan moo tax parce que selon vous les lii nga xamante ni ci ngeen nekk mu gën a nekk priorité euh, que li nga xaman ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen doom ou pas. ah non non déedéet. mais pourquoi pas donc lan moo lan moo leen tere def collectif boo xamante ni c'est exclusivement pour daal di euh, fexe ba lumière am lu lu leer en tout cas ci wàllum justice ci 14 morts yooyu. waaw xam nga loolu bu mu amee euh, ñun dañoo bokkoon ci kuréel bu ñuy woowee m 2 muy mu qui n'existe plus ah. qui n'existe bon yaa ko wax xëy na certainement contexte bi moo tax déggatuñ ko mais man jàpp naa ne ba léegi amul benn note de dissolution bu ñu wax par rapport ak mouvement pour la défense de notre démocratie boobu ñu bokkoon. mu porté woon sa combat là bindoon ay mémorandum porte woon ay plainte au niveau internationale ba ci CPI yóbbu woon nañ fa ay plainte mais au delà au delà de ça y avait aussi des acteurs de la société civile des organisations de défense des droits de l'homme ñoom aussi doon accompagner les les les les familles des victimes def ay tournées dem rencontrer leen dugal ay plainte lu ñu waroon def yëpp ñu def ko mais xam nga procureur procureur de la république moom moo censé protéger la société gis nga action publique suñ koy wax c'est-à-dire il est le maître des poursuites mais procureur su toogee ne man maa lànk Macky Sall nee na ma bu ma xool dossier bi bu ma ko jéemal lijjanti parce que ça doit servir d'exemple aux Sénégalais loolu su demee ba am ñun mënuñoo wañ loxoom amuñu pouvoir pour wañ loxom ne ko par la force doole mbaam di nga autosaisir ci dossier bi ñaata dossier ñoo fi rest impuni mujjul fenn. mais am ngeen pouvoir de sortir des détenus politiques. non en fait xam nga ñii. Euh, ñàkk nañu seen bakkan effectivement te ñu ngi leen di jaale ñu ngi jaale seen famille ñu ngi leen di ñaanal waaye aussi ñi nga xamante ne dañ leen jàpp ñoom ci ñuy xeex pour que justice ak lumière am ci dossier yooyu ci la ñu bokk donc foog ñu génnee leen pour ñu renforcer suñuy doole donc ñun en tant que euh, en tout cas mouvement citoyen amaloon nañ ci taxawaay bu am solo à travers des kuréel yu nga xamante ne bokk nañ ci muy m beneen bu ci topp muy am na ay organisation de défense des droits de l'homme ñu ngi ciy waslu àq te ñu ngi leen ci accompagner mais quoi qu'il en soit ñun euh, dossier boobu c'est un boo xamante ni dañ koo jël ak suñuy loxo ba après Macky Sall su fi jógee parce que man damaa gëm ni nag ay na yéwén que dossier boobu du leeree ci nguuru makisal mm. man loolu laa gëm du leeree ci nguuru Macky Sall parce que Macky Sall wanewul volonté. buy tax dossier boobu leer après les événements de mars mais bu mu génnee di def jàkkaarlook askan bi lan la wax enquête dinañ ko ubbi ñu xool les ñu situer les responsables les responsabilités ku ci nekk ku ci laale ñu yoon teg ci yow lu ci war mais prenons le l'exemple du jeune bi nekkoon Parcelles Assainies yor drapeau policier taxaw fële ci otoom visé ko ba ci bopp dóor ko ci bopp bal mu daanu dee mu dox nank yéeg ci pick te ñu identifié ko xam fan la ne xam nga ne kooku suñu bëggoon mu leer responsabilité bi waroo ko buux mais da nga koy buux état du Sénégal bi nga xamante ne moom moo ëpp responsabilité ci mbir mi parce que du ñun nag ñooy auto autosaisir naan dañuy topp policier wala dañuy topp ku joxe instruction pour ñu tiire ci kaw askan bi d'accord c'est le rôle de l'État et particulièrement Macky Sall qui n'a montré aucune volonté pour que dossier yooyu leer parce que moom lenn rek la jubli ci loolu d'ailleurs muy bëgg na genre événement yi xam nga moom pareegul ak askanu Sénégal xëy na dina amaat yeneen moor yu mu yu mu yu mu namm ci réew mi mais bëgg na bés buy jaayaat doole keneen muy Ousmane Sonko wala keneenaat mu joxe exemple ne leen politiciens yi jaruñoo xeexal xanaa gisoo leen ñu ñu rey mois de mars fan la mujj mais ñu ñu rey trois juin euh, le 17 juin ces trois morts là mënoon nañ ko éviter mais ci lu ñu tegul fenn avec un préfet soumis qui a sorti une décision euh, en tout cas une décision une ou bien une, une décision injuste illégale qui viole notre constitution qui viole la loi 7802 ba pare génnee force de arsenal force de l'ordre te yow condition cumulative yi ñu ne la insuffisance de force de défense et de sécurité pour s'y opposer yow indiwoo loolu comme motif nga génnee ay ay policiers ci àll ci mbedd mi ba ñu boom si ñetti nit ba léegi mujjul fenn. ñi nga xam di poser di mm-hmm. poser sur euh, en tout cas ci boppal wala ci ndoddal Macky Sall ak ñu mu àndal ñu foog ni loolu duñ ko fay. Mm. ils vont répondre devant la justice. et d'ailleurs c'était quand même euh, la raison euh, lu taxoon ma laaj la question boobu ñu lan moo tax. Euh, farataaloo leen woon teg collectif boo xam ni c'est c'est euh, vraiment pour euh, pour jàppale famille wu ñooñ nga xamante ni ñoom la ñu ñoom ñoo ñàkk seen bakkan mais tey ñi nga xamante ni yéen ñooñ ngeen bëgg ñu génnee leen ñu di ay prisonniers yoo xam ne jàpp ngeen ni ce sont des prisonniers politiques concrètement lan ngeen jàpp ne ñoom injustice bi si ñoom foofu la féete. waaw xam nga ñu ñu jàpp doyer ñi nga xamante ne mooy les ñi ñi ñi faatu. muy les quatorze morts ak les trois derniers morts ñooñ ñooñu ñëpp luy war ci ñoom ci seen famille def nañ ko dem nañ fa luñ ci mën suñu doole fa mu yem def nañ ko mais dañoo gëm ni du leeree ci nguuru Macky Sall donc euh, sàcc bu dul raw nag comme ni ko olof Ndiaye di waxee jarta yàqi nelaw tôt ou tard les les responsables répondront euh, devant la justice loolu moom lu leer la beneen bi mooy euh, ma ñëw ci sa question muy euh, lan moo tax ñun ñu jàpp ni c'est des détenus politiques ñu ñu jàpp ñun dañoo jàpp ni dañoo waroo gis-gis ak Macky Sall ak nguuram donc moo tax ñu teg leen ci loxo parce que dafa am ñu ñu jàpp di leen wooyee ay force spéciale moo tax ñu bëgg a context euh, contextualiser euh, ñoom seen jàpp nekkul ay nit yoo xamante ne dañ leen fekk seen kër ñu yor ay bomb atomique wala ñu yor ay armes yu dul jeex pour taal réew mi comme ni ñu koy présenté Sénégalais yi nekkul noonu la demee dafa am contexte bu am contexte bi mooy lan la coalition Yewwi Askan bi avait organisé je pense un rassemblement le 8 juin mu réussir à la place de euh, de, de la nation mu réussir ñu bëggoon defaat beneen parce que dañoo rejeter seeni liste le 17 juin préfet interdire ko préfet bu mu ko interdire ñetti motif la joxe bokk na ci motif yi mu joxe menace de trouble à l'ordre public entrave à la libre circulation des biens et des personnes ak tënku tamit ci article L61 bi nga xamante ne concerné wul les partis politiques mais ça concerne les les médias c'est-à-dire journalistes yeeg presse beeg ñoom i seen yi war a relayer ces informations su fekkee ni c'est des événements politiques ci ñoom la concerné mais concerné wul nit bu taxaw bëgg a wax ak ay militants mu tënk ko foofu alors que ñun ñëpp xam nañ ni le droit à la manifestation est un droit constitutionnel garanti par notre constitution à son article et de la constitution ñoo ne citoyen bu nekk am na sañ-sañu joxe opinion que ça soit ci wax ci bind ci geste wala ci marche pacifique wala ci manifestation pacifique mu nekk un droit fondamental au-delà même des textes anciens muy la déclaration universelle des droits de l'homme constitution bi daf ko consacré euh, ci biir euh, constitution bi ñu jógee foofu ñu dem sur la loi 7802 du 29 janvier relative aux réunions publiques loi boobu dafa am lu mu wax dafa ne vu que le droit à la manifestation est un droit fondamental inviolable même le président de la République ne peut le priver à un citoyen sénégalais moo tax mu codé ko joxe ñaari exception yi war a mën a tax ñu interdire c'est-à-dire une manifestation pacifique muy une une euh, c'est-à-dire une réelle menace de trouble à l'ordre public et une insuffisance de forces de défense et de sécurité pour s'y opposer ba pare yokk ci ne ces deux condition sont cumulative et non alternatives lu cumulative mooy benn mënul dem bàyyi moroomam lu alternative mooy su fekkoon menace de trouble à l'ordre public kese am na ça suffit pour mu interdire or la loi à précisé écrit noir sur blanc ces deux conditions sont cumulatives mais mais mais est ñaari conditions yooyu ma wax ni sànq gis nga ko ci décision wala les motivations yi préfet de Dakar rendre le 17 juin. amu ci am na si ñeneen ñoo xam ne du euh, teeweewuñ leen euh, te yéen yéen a leen di plaider mais teeweewuñ leen mbirum force spéciale yooyu ngay tudd mais c'est plutôt ay publication yoo xamante ni euh, teewee nañ leen ko ci Facebook bi ku ci mel ni Papito Kara ak Ousmane Diagne et tout ñooñu lan ngeen xam ci seen ay mbir. yoo xamante ni peut-être euh, euh, sénégalais yu ci bëri xamuñu ko. effectivement mais dama bëggoon juste rek def de manière chronologique jóge ci force spéciale ñëw ci kaawu. Ousmane Diagne ak Papito Kara mhm. juste pour dire et foofu laay terminer pour le cas des forces spéciales que ni le préfet de Dakar avait rendu une décision illégale anticonstitutionnelle d'ailleurs ñoom en tant que citoyen sénégalais ñu ne di ñu exercer seen droit constitutionnel mais bu ñu génnee gis ne. insuffisance force de defence et de sécurité amul parce que Dakar yëpp bunkériser nañ ko ñu ne ñoom dañuy manifester ñu teg leen ci loxo di leen jiiñ terrorisme di leen jiiñ force spéciale lu ci mel ni ay ñoom Amidia ay Ousmane Seck ñooñu kan moo ñu mën a gëmloo ñooñu nga am yàgg nañoo dajeeg ñoom ci ay manifestations pacifique mu nekk des gens des personnes yoo xamante ne gisuma ku leen gën a pacifique ci combat bi ñu nekk ñu leen di tuumaal terrorisme tëj leen kaso loolu mooy le cas des forces spéciales ni ko waxee aussi noonu la demee muy le cas Papito Kara et de Outmane Diagne nga xamante ne kii dafa reetaan waate ñu jàpp ko mooy Papito Kara bi nga xamante ni man à chaque fois sax damay suivre page am parce que revue de presse yi yu muy def day reetaanloo ay nit ci yar ak teggin mucc see saaga mucc see wax wax lu ñaaw Outmane Diagne bi nga xamante ne dafa partager une publication di groupe Futur Média bindu ci benn mot lu dul yokk ci ay autocollants riir ay euh, euh, Euh, hémodiuréure la ci yokk moom tamit ñu convoqué ko dans un contexte boo xamante ne nee nañu dañoo détourné à la une d'un journal bu ñuy woowee le journal l'observateur sur les réseaux sociaux mais ba fu may waxee ak yow nii est-ce que xam nga ni le groupe Futur Média bi mu concerné mais porté wuñu plainte nii contre Ousmane Diagne nii contre Papito Kara amul benn plainte bu dugg consernant une l'observateur boobu ñu ne dañ koo détourné. mais yéen est-ce que jot ngeen dem gise ak ñoom fi ñu nekk. effectivement chaque jour ñu ngi leen di seet. chaque semaine lan lan lañ leen wax euh, euh, par rapport ak situation bi. pour le cas ñoom soo demee seeti leen sax parfois da da ngay da ngay rus ci suñu justice bi ni muy doxee parce que le cas de Oudmane Diagne da ngay dem toog ak moom mu ne la man ba léegi sama dossier man ñu ma lan lañu may toppee. parce que ñu ngi lay toppee ci loo xamante ne plainte amul mënoo ko ci toppee. moo tax est-ce que réellement li ngay wax noonu loolu lañ koy toppee. non effectivement. Hmm. loolu kese la. loolu mooy li fës loolu mooy li am loolu la enquête yi ware non yow da nga partagé publication di reetaan kii dafa reetaan loo waate euh, à une journal bi patati patata à la une journal boo xamante ni su fekkoon ni ñoom ñoo ko détourné xanaa bu ñu leen tegee loxo ça fait plus de trois mois dootuñu gisati une journal bu ñu détourné sur les réseaux sociaux mais pas plus tard qu'hier une journal boobu mi ngi circulé ba léegi ci réseaux sociaux yi chose qui laisse croire que. mais mais nekkuñu les auteurs de ce de une. mais dañu leen a jaay doole Ousmane Diagne ku ko xam xam ne Ousmane Diagne est un membre de PASTEF nekk un influenceur sur les réseaux sociaux di def liggéey bu am solo. moo créé le mouvement ou bien la mafia kàcc kàcc bi nga xamante ne Macky Sall bu mu taxawee naan toog sa ordinateur di kàcc kàcc kàcc kàcc rek mu am inspiration créé mafia kàcc kàcc lu nakari Macky Sall neex nañu mais ci yar teggin mais foog ñu jaay ko doole nëbb ko jant bi parce que bokkut ak Macky Sall gis-gis. loolu mooy dëgg bi mais tey euh, Abdoulaye au-delà de tout ça est-ce que euh, d'accord nga ci le fait de tronquer des des des des unes euh, ay une journal yoo xamante ni dañu nekk fii di liggéey ñu jël seen ay une di ko détourner pour à des yoo xamante ni peut-être ñi ko def ñoom ñoo ko xam est-ce que d'accord nga ci ci xeetu doxalin bu mel noonu. man ma te duma ko encourager ci xeetu doxalin yu mel noonu yow ma lay laaj ndax est-ce que d'accord nga. ñu jàpp ay nit tëj leen alors que ils ne sont pas les euh, je pense que sama question c'est clair est-ce que d'accord nga. ci ay une journal. yoo xamante ni d'accord ma benn yoon. du tey euh, du suba loolu laa bëggoon nga tontu ci ay nit yoo xamante ni dañuy détourner une jàmbur di ci def naka su noon noonu wala di ci publier lu ñu bëgg a publier man d'accord mais je suis pas d'accord. Mm-hmm. mais jàpp naa ni yow tamit d'accord ñuy teg loxo koo xamante ni. amuñu benn preuve que ni moom moo moom moo yor moom mooy auteur bi xam nga. léegi lan ngeen fas yéene def euh, samedi. Euh, oui effectivement xam nga justice justice lu mu gën a lu mu gën a jox gëdd mooy preuve nit soo amul ci moom preuve doo ko sax tëj même juge bi su romboon ngay rey nit te amul preuve buy prouver que ni yow yaa rey diw mi te mu gis la teg la bët mais mënu la tëj justice noonu lay doxee mais tey jàpp nañu ay doomu jàmbur nga xamante ne Pape Oudmane Diagne am na soxna ba am ay doom. Papito Kara bu mu marié woo yàggul am Amidia ay doomam fan yële euh, manifestation dernière manifestation bi rek gis nga leen ñu naan école tijji na dañoo soxla suñu yaay soxla ku ñu topp topp parce que dañoo war a jàngi entre autres bu ñu fàttee le cadre du professeur Cheikh Omar Diagne ak euh, ki nga xamante ni mooy suñu camarade muy euh, Abdou Karim Gueye xurum xaak parce que wax nañu lu suñu regretté imam Alioune Badara Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana wax ñu fekk ñu fekk leen jàpp leen teg leen loxo jaay leen doole ci loo xamante ne imam Alioune Badara ndaw bu muy dund doon ko wax muy torture ñu ko doon def ci kaso bi kenn woowu ko kenn jaayu ko doole mais ñu bàyyi bu mu dëddu àdduna ñu jaay ñaar ñiy doole parce que ñoom ñaar la ñu yëpp tëj leen ci kaso bi loolu nekk des formes d'injustice intolérable yoo xamante ni kenn mënutu ko tolérer raison pour la laquelle ñun depuis euh, des mois ñi ngi amal ay série de manifestation pour exiger wax ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam parce que manifestation pacifique ku ko woote rek woote nga jàmm woote nga salaam pour wax Macky Sall ak procureur bii nga xamante ni il à son service pour wax Macky Sall ak juge d'instruction bii nga xamante ni il au service de Macky Sall pour ñu libérer doomu jàmbur yi parce que teguñu fenn jàpp bi ñu leen jàpp ñu nekk ay soutien de famille ñi nekk ay mère de famille ñi nekk ay per de famille ñu jàpp leen sous k que ànduñu ak Macky Sall wala bokkuñu APR parce que lu ñu leen di toppee man je pense que ëppul njëriñ. quarante cinq milliards yi nga xamante ne ñu ngi koy wax ci wàllum armement ni dañ koo détourné procureur lu ko teree autosaisir ëppul njëriñ cent huit milliards yu ñu doon jiiñ Siré Dia mais doomu ministre Mariama Sarr bu mu fiiree benn motocycliste ci VDN bi mu nekk dans une situation de comment muy daw fiiraat beneen piéton te yorul permis bu ñu yóbbulee procureur bii tëj doomu jàmbur yi bu ñu ko yóbbulee dossier bi daf ko relaxer purement et simplement classer dossier bi sans suite sous prétexte que ki nekkoon dans une situation de comment mujjee naa ximmaliku ba baal ko àq ba baale mais keneen ku mu fël bu muy daw kenn identifié wu ko moo tax mënuñoo topp dossier bi procureur bi kan la yëpp parce que gis nga am na yenn infraction man damay am gàcce di jàng. di wax ni euh, yaakaar ngeen di wax ni droit laa jàng juste ma daanelee foofu. damay am gàcce di wax ni droit laa jàng. wala je suis un apprenti parce que lu ñuy jàngal mooy am na yenn infraction yoo xamante ni victim bi su baalewee. loolu du def dara lu dul etendre l' action maanaam dédommagement bu ñu ko waroon jox mais laction action publique procureur mën na koo continuer exercer nit bu yorul permis fiir nit daw am délit de fuite ba pare doon dawal véhicule présidentiel nga taxaw ne classé naa ko sans suite sous prétexte que kii doomu ministre la jàpp ay doomu jàmbur tuumal leen lu ñu deful tëj leen ci kaso bi yóbbu leen instruction def détournement de procédure ñii ñu jàpp leen flagrant délit yow nee nga Papito Kara dafa détourné à la une wala dafa def revue de presse gis nga ko teg nga ci sa bët. yóbbu ko flagrant délit ñu àtte ko bàyyi ko mu ñibbi. mais duñu ko def dañ leen di yóbbu instruction rien que pour maintenir leen six mois en prison ci lu tegul fenn. c'est une injustice intolérable. léegi euh, Abdoulaye lan nga yaakaar ni marché bi ngeen di mobilisation bi ngeen di waajal. Euh, loolu dina ko mën ci ñii nga xamante ni ñoom tey ñoom ñoo nekk ci ci loxoy yoon boo leen xoolee surtout mobilisation yi ngeen jot def xeet bu mel noonu est-ce que am ngeen yaakaar ci bii di ñëw. waaw ñun moom comme nu mu ko waxee sànq rek def nañ fi ay manifestation yu bëree bëri ci place de l'Obélisque muy place de la nation dem rond-point BCEAO sénégalais yi commencé ñoo fekk si commencé euh, en tout cas adhéré ci initiative bu ñu jël pour. détenus politiques yi ñu mën leen a libérer parce que ñu dernière manifestation xaw ma ndax suivre naa ko am déet mais y avait beaucoup de yi bàyyi woon seen yitte ñëw ba place de de la nation ànd ak ñun dox doxu ñaxtu pour exiger la libération de ces détenus politiques ñu def ko ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam mais comme te ñun euh, yoon may nañu ñu manifester fu ñu bëgg parce que du ci constitution du ci loi 78 02 du 29 janvier 1978 relative aux du ci article quatre-vingt-seize bu code pénal amul fenn fu ñu bind noir sur blanc que sénégalais bi am na possibilité wala am na droit manifester Kër Massar mais amul droit manifester place de l'indépendance amul fenn maanaam même devant euh, palais de la république yoon may nañu pour ñu manifester fa mais ñun ci suñu bugg jàmm ñu ne du ñu dem palais de la république ñun dañuy def sitting doxuñu sax doxu doxu ñaxtu wootewuñu sax marché mais sitting sitting mooy toogaanu ñaxtu. dañuy dem ba place de la nation de de l'indépendance ce samedi 5 novembre à partir de 10 heures pour def toogaanu ñaxtu. mais yéen xam nga boo leen ne da di dem place de l'indépendance foofu xam ngeen ni yéen séntu woo leen fa jàmm ndax ñi fa mës a manifester yëpp gis nañ manifestation bi nu mu mujjee. ah déedéet jàmm lañ séntu. mais mais non nañ nañu xool place de l'indépendance historiquement. ñi fa mës a def ay manifestation wala bëgg fa def manifestation est-ce que seen manifestation am na suite waaw mooy comme lu ma wax rek. dañuy xam nañ fa muy mujje je veux dire. waaw xam nga Macky Sall moom ne woon na day dem place euh, en 2011 demoon na fi place de l' ne day manifester par la force te loolu yoon moo ko ko may ñu nangul ko ko ñun tamit yoon moo ñu may ñun xam nga ñun du ñu wàcc yoon yoon lu mu ñu may duñ koy jël bu mu jeex tàkk. wax naa la ko fi sànq nee naa la amul benn texte bu wax. léegi suñu leen ko nangulul suñu leen autorisé wul. parce que yéen a ngi xaar décision préfet. Mm-hmm. bu ñu leen autorisé wul pour ngeen euh, def foofu noonu seen sit-in bi yéen la ka ngeen fas yéenee def. justement demandé wuñu autorisation préfet de Dakar nous sommes dans un régime déclaratif. nekkatuñu dans un régime de demande d'autorisation. mais de toute façon di ngeen amul retour du préfet mu nekk retour wala bu bañ a favorable dans ce cas pas favorable. ne vous pas favorable en tout cas naka ngeen fas yéenee def. moo tax ma ne la avec ñun dañu ne avec ou sans autorisation vu qu'on ne demande pas l'autorisation du préfet samedi bii di ñëw incha allah ñi ngi woo askanu Sénégal yépp ñu fekk suñu place de l'indépendance parce que dañuy dem exercer suñu droit constitutionnel on demande pas une autorisation on a juste déclaré nag respecté nañ lépp lu ñu yoon wax article 96 bu code pénal nee na 3 jours francs au minimum euh, 15 euh, jours francs au maximum. def nañu ko respecté nañ ko dugal nañu suñu lettre d'information yëgal nañu préfet de Dakar ne ko ay citoyens sénégalais lañu bëgg nañu dem suñu place de l'indépendance Macky Sall moomu ko état bi moomu ko nguur gi moomu ko sénégalais yi ñoo ko moom on est des citoyens sénégalais juddoo fi yaroo fi amuñu double nationalité am nañu sañ-sañu dem place de l'indépendance toog fa toogaanu ñaxtu loolu nag laajuñu ci autorisation préfet moo tax samedi bii di ñëw avec ou autorisation nous serons à la place de l'indépendance pour exiger la libération de ces détenus politiques parce que ça fait plus de cinq mois ñu bàyyi doomu jàmbur yi papay jàmbur yi yaayu jàmbur yi ñuy croupir en prison au même moment les délinquants de la République les les criminels financiers le trafiquants de faux billets les trafiquants de passeports diplomatiques les ñi nga xamante ne ñoo dàkk sàcc alalu askan bi ñu ngi vaquer librement à leur préoccupation cette justice à double vitesse duñu ko supporter tey du ñu ko supporter ëllëg et dictature bi Macky Sall bëgg instaurer ci réew mi nous serons toujours là pour dire non ça suffit. d'accord léegi et pour les autres détenus ñi nga xamante ni euh, duñu ay détenus politiques mais jàpp nañ ni euh, am nañ bëgg nañ ku leen layal te ñàkkul ni ñi ngi ci prison bi di dégg yéen euh, li nga xamante ni yéen a ngi koy def comme initiative mais jëmu leen jëmalu leen ko ci ñoom parce que da ngeen ko féetalee juste si ñi nga xamante ni xëy na politique moom moo leen dugal ci kaso yi. et ces et ces prisonniers là. waaw soo soo ñu mënoon jox seen list ñoo xamante ni dañ leen jàpp injustement soo ñu mënoon dresser liste. kon yéen amul leen xamul ñooñu xamoo leen. non ñun xamuñu xamuñu ñan lañ fi jàpp. injustement mais mais chaque jour ñu ne prison bi ñu ko gën a encombré mooy ñi nga xamante ni peut-être teel nañ leen fa ñu yàgg fa lool. waaw mais te jugé guñ leen. oui mais ñun lenn lañ ci mën muy def euh, lancer alerte dénoncer. inviter l'État du Sénégal à ce que mu améliorer les conditions de détention. mais pas créer un collectif moo tax ma ne la xam nga ñun xamantewuñu ak ñoom ñun ñu ñu xamanteel mooy ñii nga xam ne dañ leen jàpp ci jaay doole mu leer nañu lu flagrant xanaa nag doo ñu poussé ki nga xamante ne dafa enfreindre les lois yi ñu régir yoon teg ko loxo war ko corriger war ko parce que maison d'arrêt et correction la ñu wax ñun ñëw taxaw ne déedéet la ñu libéré détenu yi ñu jàpp yépp xamuñu leen mais lu ñu mën mooy inviter l' du Sénégal inviter les autorités à ce que ñu améliorer les conditions carcérales à ce que ñu améliorer li nga xamante ni nii tey mooy nekkin bi détenu yi di nekk ci kaso bi waaye aussi les longues détentions préventives yi ñu mën koo wàññi diminuer ko bu baax a baax mm. donc ñun ñi ñu xam gis leen seen injustice flagrant ñun ñooñu la ñu mën a xeexal mais ñeneen ñi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu mu génne leen fu ñu nekk. merci beaucoup Abdoulaye di la jaajëfal ci sa teewlu donc moom lañu fi dalaloon mu nekk ci collectif euh, bi nga xamante ni moom mooy euh, taxaw pour la libération des détenus euh, politiques ñu koy woowee COLIDEP merci à vous chers téléspectateurs merci également aux internautes et aux auditeurs de 88.4 Origine FM di leen jox rendez-vous demain incha allah ci beneen numéro bu Matin Bonheur excellente journée à vous.